back. Nous sommes de retour. La plus grande émission People du Sénégal. Ça se passe sur Sénégal 7 tous les samedis et les mooy loolu tarkal la macha allah émission bu mag bi nga xamante ne lañ cay dafa neex nee la kaay gën a tàng fi lañ koy waxtaanee mais aussi dossier People yi gën a tàng yi gën a neex sénégalais yi fi lañ koy waxtaanee saa su ne diggante Ami ak Adji Mass bi nga xamante ni la macha allah dañu neex sénégalais <laughs> <laughs> <laughs> waay bu def tur vrai bi de DJ Am bàyyi rasul doy. Eh, DJ Am. bàyyi rasul de point. non wax sa tur vrai vrai. ah boobu sama tur vrai vrai liggéey nga war a ñëw ci plateau bi. <laughs> dugg ci cimetière ni da ngay bàyyi. <laughs> alors mu ngi noonu ça c'est l'équipe intense la grande team bi nga xamante ni dañuy. et l'agréable dañuy euh, kaf dañuy fo ak yéen dañuy reetaan waaye aussi dañuy waxtaan loo xamante ni dafay am solo loolu la et puis dafay baax ci société bi aji nee naa la takkati nga verre yi tey nga waxatee ay bar ay bal salaamaaleykum euh, yéegal verre yi nga xam ne li may wax du ma gis du ma ci seet kenn faa ma wax ay bal di la jaajëfal am notre très cher frère am l'animateur du peuple macha allah la maestro jaajëfal leen bu baax a baax waaye bégeeti bu baax a baax ami ko mbay sama waa ji baax gandris jovial gentille généreuse adorable eh mbokk téléspectateurs yi toog di seetaan waaye di jaajëfal ci sunu patron yi macha allah. Mhm. fa tubaarikàlla lii dafa neex weer bi dee ñu lay virer de gauche à droite liggéey mën na lu ne. macha allah. waaye tamit bëggee ci fan si xarit am di jaamu mbokk saa bu neexee rek tubaarikàlla nee naa ko ci yéen la ndax yéen a ñuy appuyer di ñu bousculer euh, tubaarikàlla ñu innover jëm de l'avant jaajëfal mais est-ce que xam nga ne verre yi nii sénégalais yi sénégalais yi ñu ngi koy wër dégg naa ñu koy wër ma ko jox Ngoné Jalla si laa bëgg <laughs> Ngoné ma ko jox tey euh, ki nga xam te moo di Max Business sincèrement ensemble tey tout Chanel la da nga caché lépp ci kaw ba ci suuf macha allah hop hop hop taa yaa ngi ci ay loxo grave grave non loxo bay de pour de western bi bàyyi naa ko man ba ma tuddee Western laa. mais nuyu suñu waa dëkk waa Thiès kaay. ren kii kii caca. waa Thiès benn aéroport 99000 arrêt Jakarta. mooy suñu dëkk man ak Adji a waaye suñu dëkk man ak suma yaay Ami Collé mooy Kell Diop. waaw waaw waaw waxtu ngeen laay nuyu. ah léegi de Western yi ñoom de. général wax yaay booy nam na sa noir baax na dafa mel ni tàngaay bi dafa la sonaloon tey de. tàngaay bi dafa dafa dafa metti mm-hmm. comme dafa metti il faut parfois ñuy def yu oyof yi nii. Mm-hmm. ah jël ay petit maillots yooyu rek jox ko tailleur yi rek ñu daal koy dagg. mu jongoma lool koy sol. mu jongoma lool ñu filaale sànneeku sàjj def di a baax a baax ah, eh, di leen jaajëfal di leen wax ne namoon naa leen ci eh, deux jours yu ndaw yi rek da ngeen may manqué surtout aji maas moom <laughs> sama anti stress àdduna bi ko xam nañ ko dégg nga

ñun guddeeg bëccëg suba ngoon dinañu woon ni ah yéen teg ngeen fii seen tànk def ngeen li def leen laa démb gi sa frère tamit noonu du nuyu Sénégal njaay gépp bàyyiwuñu kenn waaye du nuyu waa Kell Diop sama dëkku papa barkalla macha allah suñu dëkk ak waa Tëngéej waa Tëngéej waa Tëngéej <laughs> yaay waaw nuyu naa leen waa kay man dama tàyyi aji changé nañ tur bi wala changé guñu ko non non changé nañ ko non lu bàyyi Fall bi man kenn du ma tuddee te ay western quand même. <laughs> alors loolu loolu nag mooy camp de le <laughs> décor donc KBS nee naa ça comme euh, ay dossier people lañ cay waxtaanee waaye aussi ay kaara yoo xamante la nee naa ko boo a <laughs> li nga xamante ni moom mooy bu Astou Dione nekkoon ex femme bu euh, Cheikh Yérim Seck bi nga xamante ni Fouta Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi moom la doon amal ñu dégg nag ay kàddu yoo xamante ni kàddu yooyu la moo andi coow lu rëy ah nañu ku nekk mu ngay génn gis nañu aussi Nabou Dash def na live donc ci li ñu dégg daal ci li nga xamante ni moom mooy live boobule euh, ab waay moo dugg ci live ba di xam la ni kii di euh, Astou Dione bi ko Cheikh Yérim Seck takkee euh, fekkul woon ci moom ndaw donc mu nekk loo xamante ni indi na coow lu bari euh, kii nag riposte na Nabou Dash génn na aussi def def live défendre ki nga xamante ni moom mooy Astou Dione dal aussi ci kaw ki nga xamante ni moom mooy Fouta Tampi waaye aussi def ay menaces entre guillemets donc jëmale ko ci ñi nga xamante ni ñoom lañ ni ñoo nekk ci ginnaaw Cheikh Yérim Seck ñu mu ne nañu nañu may kii di Astou Dione nañ ko may jàmm donc noonu daal la ko tënkee mu nekk loo xamante ni donc bëgg naa vraiment tey ñu analyser ko ci cas bu bees

entre parenthèses dafa nekk en couple ak Zeyna donc gars ñu ngi koy lamlamee ci suuf ci internet bi yàgg nañu dégg ay rumeur ana lu ko sabab kii di yaay bi euh, di Viviane Chidid dañu ko nominé aussi ci li nga xamante ni moom mooy Trace Music Awards ci ñaari catégorie mu nekk beneen ndam ci la reine de la musique sénégalaise Viviane Chidid waaye Mia Guissé Adji Mass fi lañ toogoon nga ni Mia Guissé bu jógee ci ay loxo dina dal ci ay dafa mel ni loolu la tey kaa bees nar naa kii de nar <laughs> temps bi ak kàddu yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ak remariage Astou Dione ak li nga xamante ni euh, wax nañ ko ca mu nekk ay kàddu yoo xamante ni sénégalais yu bari ñu ngi koy naqarlu aji ba ci am sa njàngat euh, naka nga ko gisee ak qu'est-ce que ça t'a fait man euh, li may njëkk a wax ci ki nga xamante ni Nabou Dash laay ñëw mhm. man dama ànd ak Nabou Dash na xam lan moo tax mhm. man dama taxaw tembe dama ni femme yàq femme daf war a jóge mhm. man nu faa mënti di mel dama lay euh, euh, protégé dama lay supporter dama lay may benn appui foofu moom tey xaw ma Nabou Dash fan la doon defee ay erreur fan la doon daanoo. Mhm. mais fii elle a cartonné. Mhm. parce que dafa taxaw appuyer ki nga xamante ni moo di femme bi défendre ko man j'aime mhm. foofu moom moom moom kuy wax ngir yàlla rek tax waxal loolu. mais benn instant bi ñeneen ñi nga xamante ne dañoo nekk ci camp yi c'est pas la peine ñu tudd tur ndax ku nekk xam na leen li ñuy def kenn rafetlu ko. biir màcc man parce que gis nga réew. am na fu muy toll foo xamante ne nii lu mu métti métti métti métti métti rek. nan ko natt d'abord ci seen bopp ndax bu ñu leen ko defoon dina leen neex bala ñu ko teg ci doomu jàmbur rawatina Astou Dione koo xamante ni très effacé peu de parole peu de bruit boolewul dara ak wax tey yàlla boole na ko koo xamante ni c'était un grand homme un grand homme tout le monde ki nga xamante ni moo di Cheikh Yérim mm-hmm. ci sur son domaine mm-hmm. sur li nga xamante ni nii ci askan mm-hmm. ci juddu ci lu mu mënti di mais am na leen lu nga xamante ne bu fekkee waxuma ni moo def de. Mhm. moom moo def lii d'après li nit ñi di wax ni moo def influenceurs pour ñu dem di wax Astou Dione de quoi que ce soit vierge na wala ou vierge non c'est pas du tout honnête vraiment. Mhm. ba pare aussi lii nii nii séréwul waxtaan dëgg ca la. Mhm. ndaxte am na leen lu nga xamante ni yàlla leen na feek nit ndax la la preuve en est que tey Kine Badiane lancé na message boo xamante ni képp ku doon sëy ci képp ku doon sëy tey jii am li nga xamante ni nii continuel continuel continuel mu réglé la dafa mel ni on a am problème de son donc Massamba mu réglé la son bi ndax li ngay wax am na solo bu baax a baax te bëgg naa sénégalais dégg ko bàyyi ko xel yegale ndax tey li lay wan loolu mhm. tey Kiné Badiane lancé na message boo xamante ni képp ku doon sëy ci kër mhm. waroon nga faa def lu baax ba boo fa jógee boo fay dellusiwaat doo am gàcc mhm. ndax wane na message bi tey dem na sëy ak Amady taaw moom la ko amal Amady takk jabar ñu mu jël doomam li nga xam te ne bàyyi kook moom te nit ki bàyyi na fekk sa sëy nga fi tas mhm. bàyyi sa doom sa doom ñu laagool ko sëy nga fi tas bàyyi fi sa doom ñu def ko góor jigéen mhm. sëy nga fi tas bàyyi fi sa doom ñu def li nga xamante ni mooy nu la neexul mhm. mais nga ñëw sa doom boo tëddee nga daan nelaw grâce ak nga xamante ni moo ndayaa ma koy nuyu de passage sama xarit nit ku ma xale bu réglé bu diiñ fii la duggeen mu ñëw euh, def seeda yu mel noonu kon ku ci nekk war ngaa taxaw ngeen ànd na rafet tàqalikoo na rafet oh, waxtaan dëgg ca la mm-hmm. mais tey jii am na lu nga xamante ni nii bu bu ko bu ko ki nga xamante moo di Cheikh Yérim di def wala d'après li nit ñi di wax ni dafay ñu muy yónni man man euh, ma déggee nga moom mooy Nabou Dash bi muy wax aussi loolu aussi soulevé na ko non dafa juum mm-hmm. man Fouta Tampi c'est une man dama ko jàpp ndax ni nga xamante daf ko bëggee ami collé man noonu lay mel parce que olof dafa ni sa xaritu xarit sa xarit la waaye sa xaritu lay doon encore une fois pour te dire vrai mais tey am na foo xam te ne nii féete na fa Ami Collé kon tey dinaa rus Ami Collé tey loo xam te ne dinaa ko wax waaye moom xam na ni en âme et en conscience xam te ne nii xam xam na ni euh, Astou Diom jigéen la te jigéen da nga war a taxaw protéger sa moroom jigéen wax naa dëgg jël mooy loolu mais war a ko taxaw di ko di ko de gauche à te lan mooy ndaw yow day loolu mooy nekk débat bi. très bien day xale am. Uh-huh. ci frotté la suna soo xam ne mu ñëw nekk vierge. Uh-huh. mais vierge boobu est xam nga ne am na ci bari ñoo xamante ne moom na ni xaar bu vierge boobu dañee ci ñoom ñoo ngi yoroo ceeli. dëgg la barke Cheikh Abdou Karim. dëgg la mais jigéen taxaw. amul ndaw amul dara toog ci dignité am toog ci sëyam bi ko mayee jëkkër pendant cinq ans pendant dix ans pendant quinze ans pendant vingt ans góoram ji kii kese a xam jëkkëram kese nga gis jëkk koo xamante ni jëkkëram moo ko dévergé mais xale bi moo raw ping pong mm-hmm. képp ñëpp koy utiliser mm-hmm. mais ñaatee na ko fi gis ba pare am ndaw ak amul ndaw du raison ci li nga xam te ne moo di moo di sëy mais ni du raison ci sëy attention mooy loolu mais am na yen yoo xam te ni c'est tombé ba il a tombé bas daal pour te dire vrai Cheikh Yérim moom moom pour te dire vrai bu fekkee ni d'après nga xamante ni yooyu yëpp ñoo koy wax ce qui est derrière ce qui est les manip ak manipulation ci nekk yëpp il a tombé bas parce que Seydi Khadim c'était un grand homme. Mhm. nit ñi très respectueux. en plus moom dafa nekk nit boo xam te ne koy xool di ko bàyyi xel dafa war a xool fi muy jaar. Mhm. nit bu ñu lay xool di la bàyyi xel di superviser si yow ñëpp di la bàyyi xel da war xool fi ngay jaar. mais est-ce que aussi ki wax Cheikh Yérim aussi moo ko wax loolu tamit question la. Ah, boo xamante effectivement loolu moom ba léegi déggaguñu ko mu wax. Mhm. Euh, te aussi ki kan moo ko wax loolu. donc ma yaay booy en tant que jigéen je sais aussi ci live am la ñu nemmeeki la ñu nemmeekoo wax ji. aussi mu nekk loo xamante ni euh, indi na coow lu bari donc yow bi nga ko yëgee quest que ça t'a fait. Mm, bon ça m'a mal. Mm-hmm. parce que li tax ça m'a mal mooy ah mm-hmm. mm-hmm. nii nii ci diggante Fatou Ndiaye Fouta Tampi ak ki nga xam moom mooy Nabou Daje. rafetlu ma ko parce que rafetul. clash bi tàng na de. clash bi tàng na <laughs> yàqante yi commencé na. kenn ku ci nekk yaa ngi sulul sa moroom ay mbóot. naboo nga ca côté bee di wax. Mhm. kee nga ca côté bee di wax liñ naan ay du yem ci bopp borom. Mhm. Mhm. te ay la woo xam ni kaka moom kenn dégg ko ci kaali. wala kasira très bien kenn dégg ko ci dara parce que xale bi nga xamante ni tey moom moo waral coow bi yëpp. kenn déggul mu génn wax lu toll ni bën bënu puso lu tax ñoom ñu bëgg a jël ayu ayu ayu jàmbur bëgg ko def seen ay ñoom ba mu jaral leen ñuy sullante ay mbóot yoo xam ne ñaaw na torop man dama tiit actuellement ci Sénégal man dama jékki-jékki ma ne est-ce que réseaux sociaux bi di TikTok tamit est-ce que duñ ko tëj Sénégal parce que dafa mel ni ñun ci Sénégal comprendre ñu lan moo tax a jug li nga xamante ni moom mooy réseaux sociaux. Mm-hmm. parce que ku ci am ku ci am compte ku ci am malentendu ak nit rek. Mm-hmm. fa nga koy fajee. Mm-hmm. ku ci am gisa ngasante ak nit rek. fa nga koy fajee Fouta bi ci biir début life am temps mi ngi yedd euh, euh, astu naan ko xale nga Euh, da ngay dugal li nga xamante ne moom mooy sa Facebook benn da nga fay dugal dara soo paree ci saa si nga waat ko. Mhm. nekkal fi nga nekk parce que xale nga bu ñëpp jox cër. Mhm. man mii dama la jox cër dama la respecté. Mhm. mais gem bi nga nekk nii génnal ci gem bi. mooy toogal nga sëy sa sëy nga tranquille parce que tey ku ci nekk xam na ne jigéen bu sañoon sëy te ba mu génnee ci loxo tamit ci loxo la dee la la tàbbiwaat. muy jëkkëram ji nga xamante ne takkoon na ko muy Cheikh Yérim di un boo xam ne Sénégal njàpp gépp ko jox bëgg ko bëggut xam Sénégal rawatina ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci côté euh, euh, euh, monde audiovisuel mm-hmm. parce que ku ne xam ne ne mm-hmm. un café avec amul ku ko bëggul a xam ci Sénégal mm-hmm. pour mu dugal la ci li nga xam ne film boobu am na ko ak leneen ak leneen loolu loo xamante moom Cheikh Yérim mi ngi koy def fii au niveau du Sénégal kon tey bu takkee soxna c'est normal nit ñi xam ne takk na soxna parce que soxna sama takki tamit li ma ne ku ku ku dee ca maasaba yaa tàgge banditisme. Mhm. su demee tey ba divorce su am ci. et eh, sëy ak tas ñoo ànd. Mhm. te lii di virginité kenn si ñëwu ko woon ci sëy. ah oui. Mhm. lii di ñàkk vierge kenn si ñëwu ko woon ci sëy. du sax lu ñuy ga lu ñuy wax kàddu yi dafa ñaaw. trop ci diw mi elle n'est pas vierge. et alors kooku ki ko wax man xaw ma. mais ki dugg ci biir laay vuuta tàmp wax wax ju ñaaw ji am na ay rakk. jigéen ko jur. suba dina takk soxna. dina am ay doom mhm. te gis nga àdduna lépp loo leble ci lu baax ci lu bon lépp dañ la koy fay mhm. te nit léeg-léeg sa say njaboot pay ay pots cachets yoo xam te ne seen ndey wala seen baay moo ko liggéeyoon tooñ ko ci nit yàlla répercuté wu ko ci ay njabootam mhm. gis nga ku ne ci ko liñ naan ku ne ci xare du ree ko ñu jàmm dëgg la munoo yor ay doom xamoo say doom ëllëg fan la ñuy mujjee boo ko yorul nii nii su ma ñan nga yàlla am ak njaboot njaboot ga ngay am ëllëg xamoo ci lan la ñuy mujj ba ngay toog di mën a wili pand jigéen ak jigéen cër bi ko suñu borom jox nga di ko wili pande naan elle n'est pas vierge ak elle est nangam sàngam elle ñi ci nekk di ci wax du ma ci ne di lim parce que jot ba ñu am man awma ko man mm-hmm. de ma personnel mm-hmm. fañ leen étiqueté ñaanuma yàlla mukk étiquette boobu dal sama kaw mhm. maa ngi ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala yal nañ ci yàlla muccal seen vie la ñoom la concerné kenn ku nekk tu libre de faire ce que mhm. kenn ku nekk tu libre de faire de wax li nga xam ne moom nga sentir mhm. mais en tout cas nañu bàyyi xel ki ñuy waxal jigéen la nañu bàyyi xel ki ñuy waxal dafa am ak famille nañu bàyyi xel ki ñuy waxal ëllëg dafay am ak njaboot ba keroog muy sangoo suuf la elle vient d'être fraîchement am na jëkkër suñu borom may na ko est-ce que wax dina aussi mënul impacter négativement non mën na ko bañ a impacter bu dee ki mu nekkal gërëyee la parce que nag nit boo ko bëggee mhm. mu nekk nit boo xamante nitu média la mhm. il faut nga xaar lépp parce que ñun ñii tey ñun ñii di kaa nii mhm. soo mën nañ xëy kaal ñu lu rëy loo xamante ne nii <laughs> ki nekk ak ñun moo xam jëkkër la moo xam kuy waaj a nekk jëkkër la moo xam koo xam ne far la bu comprendreul milieu bi ni mu demee rek day daal di lâché wu ci saase mais tax moo tax nitu média ku dul gër yee dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg du ko jéem waaw gaynde rek gaynde dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg hmm. mooy jéngu ku nekk nitu média dañ ko waxal lu ne dinañ la waxal lu ne sos dina jógee ba jege foo xamante ne say noon hmm. sax mën nañu rassemblé wu créer benn sos boo xam ne bu ñu ko nee bëmm àdduna bépp ne effectivement ah dëgg la hmm. te fekk na lu toll ne bën bënn puso amul ca loola nabudage nag ak fuuta tàmpi nañu xam ne ay jigéen lañu seen yàqante bi ñu nekkee actuellement nii ku nekk di wut sa moroom loo ko waxal nañ ko arrêté parce que amul sens te fuuta tamit xam naa ne la nabudaas tudd doomam bokk na ci lu ko gën a frappé mm-hmm. parce que Nabou ba muy xas xasul Fuuta fa xasul Fuuta de mm-hmm. doomu Fuuta la doon xas mm-hmm. et alors te dañ ne genn golol gàtt na waaye lépp lool ca laal rek borom ba yëg ko rawate na muy doom doomam gi def na fi ay erreur monument yoo xam ne kenn xamul nu mu toll mais tey suñu borom dimbal na ko ba doom ji kenn déggatu ko ci benn détail moom Nabou mënoon yemale débat rek ci entre ki nga xam moom la ak Fuuta Tampi mais na mënu woon a ñàkk colaas parce que fi ko doon waxee rek mooy bàyyil xel ni sa doom kat na fi defoon na defoon na ji defoon na li defoon na laa tey mi ngi mujj gem bi ci ñoom ñaar la au lieu nday asu ma nga xamante ni moom lañ jëloon teg ko ci digg bi mhm. di waxtaane wax vierge naag vierge lak ak nit ko vierge ko vierge lan moo ci yoonu ma <laughs> moom la ak borom këram buy neex te ñoom ñaar boromam borom këram la donc man gisuma <laughs> lu jàpp détail bu rëy bii nii ñu indi ko teg ko ci kaw table ji ku nekk di ngaw ci ngaw te ku wax fee wax fële ku wax fële wax fële ci ay nit ñoo xam ne vraiment jaru ko <laughs> jamono da nga benn instant aussi benn instant aussi protégé na au moins as astu man foofu dama ko foofu wax dëgg yàlla du ko abalaat man nag histoire mu histoire ak Fouta Tampi ñoom ñaar la te ñaari kuy mun nañu bokk mbal déedéet lu leer lay wax am na lenn lu nga xamante ne nii moom bu dawul Fouta du daw. Fouta bu dawul Nabou du daw ay vidéo sexte mooma ci intéressé mooy que man défense bi Nabou Dash défendre Astou Dione rek man mooma ci neex. loolu moo leen ci neex. le reste mais le mais le véritable débat tamit est-ce que en deux trois minutes rek duñ ko poser ñu waxtaanee ko muy sànq da ko wax da nga ko junj lan mooy dévierge ah. euh, virginité unité maanaam góor takk na jigéen lan mooy ndaw parce que boo xoolee aussi waxuñu am naam amul génn nañ ci ah mais daf ñuy permettre juste rek ñu cof ko daal di jàll euh, ndax ci lu ñu wax euh, jigéen buy génn góor ku góor ki bëggu ko takk est-ce que bu fekkee vierge viergeul daf ko ko war a wax avant mariage bi wala même bugg ku góor ki bu ko takkee ñu dem bii ci <laughs> loolu mooy véritable débat bi nañ nañ ko waxtaanee gis am na loo xamante ne fi mu nekk nii euh, nee naa ko boo xoolee ñu ci bari dañ ko def terre à terre. Mhm. ndax boo xoolee ña doon baax nag ña ngay baax. ba tey mhm. dëgg ñay bon kenn mun leen teree baax. Mhm. mais am na leen loo xamante ni sax pour man sax wax dëgg yàlla bu dëgg dee dëgg. un vrai mec un réel. un gentleman un gentleman. oto calculé yooyu waxtaan dëgg ca la ah. mooy loolu parce que yow nga verse terewul la ngay sax la nga yor moom la ko versul yor mais la mooy problème bi. wala nguunu ngaana la ma xamul. luy nguunu ngaana wax leen ma pour ñu xam. Euh. il faut que ñu arrêté di ko yoo xamante ne nii. est-ce que loolu Sénégal. ci réew mi ñu nekk aussi ñàkk vierge aussi est kii la fi. Euh, tuuma la fi xaw ma nu ñu koy waxee noonu. mayaay booy vierge ñàkk vierge lépp ci choix doomu aadama. ah oui. Euh. mais daal xale bu nekk. war nga mën téye sa bopp ba borom kër ñëw nga jox ko ko pour sagal sa ndey. parce que lu ñu fi mmh. fekk démb la tey soog a ñëw. Mmh. mais mënatoo téye ma dem mënatoo téye ma paate nit ki rek moo mën a téye boppam nit ki moo mën a protéger boppam léeg-léeg mhm. jabar sax nga takk ko ci mhm. fàtta yàlla sunu Muhammad mhm. mu jëndi ndaw mu dem jëndi ndawam ñëw indi ah, place wax nga dëgg wax nga dëgg am na fi aussi am na ñuy réparer am ñoo xam ni juddoowuñu ndaw am na ay doomu aadama yoo xam ne ba ñuy judd juddoowuñu li nga xam ne moom mooy virginité am ñoo xam ne ci à ba âge bi ñu nekk xal la ñuy detteelu seen ndaw dem ci daanu moo tax ñuy tere jigéen léeg-léeg muy daanu di detteelu. am ñoo xamante ne dañ leen violé. am ñoo xam ne ci viol ci bi ñu nekk xale su ndaw lañ leen di violé ndeysaan ñu ñàkk seen ndaw am ñoo xam ne yenn sport physique yi nga xam ne jigéen daf koy def léeg-léeg mën na dindi ndaw jigéen te du ko yëg mm-hmm. donc ndaw c'est un truc boo xam dafa sensible ñu joxe seen bopp tamit am ñoo xamante ne nii maanaam bëgg-bëgg xale bu góor par amour ba mu toll la fenn fi tax nga yëkkati sa joxe ko yooyu it am yooyu it yooyu am la parce que nit ku nekk parfois mm-hmm. fa muy toll la mm-hmm. ndax am na benn âge boo xam nit ku bu ci tolloo ka koy déverger bu ni kii ba may déverger suba du doon sama borom kër du ko jox boppam góor ga dina la baab di la baab di la baab di la baab ba ne curus tëddee la sa ndaw yàqu mhm. doo xam lay wax say mbokk mhm. keneen ka lay takk suba nag avant muy dugg ci mariage bi góor am na ci ñenn ñoo xam ne ñoom ñoo am seen choix wu takk jigéen bu vierge. Mhm. ñii am nañ choix wu takk jigéen bu ñàkk vierge lépp choix la. ci aaway dëgg la lépp choix la ki choisir nag. takk xale bu jigéen. fekk na ci moom ndaw fekkul ci moom ndaw. mais da koy suturaal muñal ko ndax àdduna sutura la ak muñ. dëgg la. ki fekk nag jabaram mu am mu am ndaw. Mhm. mu xam ne am na sens fekk xale bu ne muut boo xam ne kenn kenn cofu ko kenn këfu ko. te ñu bàyyi laabaan te ñu bàyyi ci dëkk bi. <laughs> laabaan gi <laughs> am ñoo dafa doon aada ci ñoom. ah oui comme loo mën dañ lay laabaan. parce que am na famille yoo xam di jënd ndaw. laabaan boobu moo tas dëkk bi. mënoo fexe ba duñ la laabaan parce que am na ñoo xam ne dañuy toog xaar sama doom ji am jëkkër ak mm. jàmm waaye nag parents yu ci bari buñ lay may léegi dañ naan na may nañ la jigéen de kenn mayetul jànq loo ci fekk baax na parce que xam nga lan moo tax gis nga yooyu sax nañ war a nekk di focus gis nga ku baax sa bopp. sa bopp sa bopp. Mhm. de toute façon. te Adji est-ce que ne sa biir wax sànq am na lu am importance loo wax ne nga nit a ngi jàggaarde virginité am. jëkkër. Mhm. ba ñu jël ndawam. Mhm. mu def la ko sax mu def la ko sax mu mel parce que Cheikh Abdoul Karim. nit ñàkk loolu bëri fi am na ñoo ah, xamante ne sax wax ni carrément san aada la. dëgg la ko téye mais dañuy xaar bés bu jëkkër ñëwee. c'est fini pare nañ ci dañuy sax am jëkkër am far li gën a garaaw Mm. tey ji nga gis koo xamante ni fekke woo ko dara mais mi ngi sàmm dignité jëkkëram la xam ba keroog nii mu toll mm-hmm. Mm-hmm. lu leer loolu wax mm-hmm. il faut que ñu arrêté gina yooyu du wax doy na di yooyu du ay wax ay arrêté yooyu vrai vrai gentleman vrai góor yàlla vrai vrai réel warta sax focus ci yu mel noonu waxtaan dëgg ca la <laughs> nit ki boo ko bëggee da koy bëgg avec sa nature. avec sa nature. Massamba nee na ngeen bàyyi ngeen bàyyi nga bàyyi Massamba bi tamit <laughs> di nga da nga koy tudd sànq ba léegi. <laughs> Massamba jur Anta borom ñetti xaar. gàcceem nga nekk mu yaatu. alors ah, ah. loolu loolu mooy premier point bi ah xam naa ne tey cas yi dafa bari donc loolu la ñu doon wax ci li nga xamante ni moom mooy remariage bu Astou Dione ak li nga xamante ni coow la bu ñu nemee ko ci diggante Nabou Dacha ak ki nga xamante ni moom mooy Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi ci kàddu yële mais on retient que ni euh, en tout cas moom elle s'est remariée ñu di ko ñaanal n'est-ce pas euh, ci sëyam boobu lay donc voilà mu nekk vraiment sëy bu ba pare dafa am benn point ci biir macha allah mooy la xam nga nit ki mën nga ko taxaw daal di koy daal ngeen daal di séparé te doo ko may baat kooku ñëw taxaw bi su fase ba mu téye li nga xamante ni moom mooy idda bi ba 4 mois yi jàll mu yee ak keneen sa xol du neex mu jaral la ngay sa ngay sànni pic ok loolu lépp mën na ci nekk. loolu lépp góor moom góor na ma yàlla baal li ma ko sañ wax am na man man góor ça m'arrange pas vraiment pour dire ma góor la fi góor la fi tuddee Western Union góor la fi def ba nekk. vraiment ça m'arrange mënoo ñëw bëgg. vraiment ni ma leen di du bëri. <laughs> waaw léegi man bëgg day <laughs> wala ñu jékki-jékki ñun la ba par bi mën na la porter plainte par bigamie. Mhm. parce que amul amul këyit <laughs> xam nga lépp a ngi ci biir. ba pare débat bi li ci neex yëpp mooy débat bi dafa neex parce que bii xam nga tax mu neex. Hmm. nabu daal dafa ni teel daal ne góor gu gàtt la amul léegi am na góor gu njool góor ñu gàtt yi may nañ nabu daal. <laughs> nabu la am ñu bees sax. gàtt la amoon léegi góor gu njool la am. xale yu góor yu gàtt yi may nañ nabu daal. <laughs> dama bëgg na en ah, et puis def na ay révélation ba pare menacé na aussi nabu pour dire que ni nabu aussi am na lu mu xam ci dëkk bi. ah dëgg la waaw daal gis nga. <laughs> ab tubaab gis nga yi yal nañu ci yàlla muccal. ñu daal muccal ñu ci musal ñu ci comme Sénégal Sénégal léegi euh. lu waay wax ñu teg ko ci internet bee boole ko naan la saytaane nga ak yéen a yàq société rek ñu xam des fois yéen a yàq société rek yéen a daggal sànga bu luy jëriñ de walaay la azim wax na chaque jour ñu wax luy jëriñ mais bizarrement ce qui est dommage mooy euh. tey loo wax wax wax lu jëriñ am na ñu nekk seen ginnaaw clavier ñoo xamante ne nii maanaam ay ay nemi la ñuy doon ay noon la ñuy doon mhm. noonu day làqatu fu nekk noonu day làqatu ba ci ginnaaw mm. wax loo xam ne lu am lu jëriñ askan bi la sax mu mec là xoolal ma ces genre de femme là nga bindal leen merci <laughs> ak ay kër man duma leen bind dama euh, ñu tey bi jàll ca beneen ba aji maa ngi koy wax sànq fii la ñu toogoon bi divorce bi amee diggante ki nga xamante moom mooy No Face ak Mia Guissé mu andi coow loolu fi toll nii nag ñu ngay nemmeeku beneen Mia Guissé boo xamante ni elle euh, la forme entre guillemets si on peut dire ainsi donc gis nañu aussi vidéo boo xamante ni xamuñu voilà est-ce que c'est un nouvel amour wala clip euh, wala clip en tout cas lu ne mën na nekk mais xam naa ne daal ni euh, comme ni mu ko waxee woon ca waay wa la vie est belle actuellement elle est en la vie est très mooy jékki-jékki na wane loxo tegantel man tur génne li nga xamante ni moo di bàgg ba mu neex ko hmm. daal di génne li nga xamante ni moo di lèvre ak sikkim kooku lan moo ci des ragalul de parce que ragalul parce que ragalul Adjibas elle est bien Adjibas sikkim bi sikkimu kan la yow sikkim bi ma ko bi ma ko njëkkee gis woon na bi ñu wanee woon fii parce que NoFest dafa am en tout cas ce qui est l' ba ce qui est l' daal li ma ko li ma la waxoon laa waxaat. Mhm. waxoon naa la miyaa du jug ci loxo. loxo bay de puudar yi ko ba sa bàyyi yeneen loxo yu gën a confortable daal di koy teewaat lu leer laa la wax parce que xam nga moo tax. Mhm. parce que dundul woon d' li nga xamante ne nii dévoilé woon nañ ko yu bëri. ci idda ci son bi ci idda li mu waxal boppam ñu xam ko. Mhm. mu waxal ko li nga xamante ni moom moo di boppam moo lay woon ni chaque jour da leen téye nit ku baax. Mhm. nit ku baax du jug ci loxo rawatina jongoma kenn du ko bàyyi nag boo ko bàyyi day luluwaat defarwaat. Mhm. amaat conscience tranquille reposer sa esprit. yaa ngi dégg amaat li nga xam te ni moo di repère. ndox ci ay tànk yu wóor ba ay loxo yu wóor teewaat ko. il faut que ñu di def ce genre. boo gisee mu ngay wane ni carrément ni dafa heureux. Mhm. man je suis comme ça. sant gàtt gàtt damay téye sama valise bu ndaw bi ni la vie est belle même booy dem fii ak fii <laughs> waaw xam man. def tour bii tubaab laa yor bii na ci benn micro lañ nekk. ak benn parfum garaaw. dem ci léegi bakkan la snap et belle génn doxantu ci piscine yi nag sama rab ndox la man dama bëgg di gis glaçon piscine jacuzzi. fontaine xam nga. faaw nga dem Dubaï ak la ko wër aji <laughs> mais alors bu fekkee loolu lay am na aussi est-ce que tamit teelul ah d'après. teelul lan teelul sëy. ah. engagé wu waat engagement boobu comme ni ko Adji di waxee. jël engagement boobu man jàpp ma ne engagement bi engagement relation la man dama jàpp ne engagement bi clip la. parce que xam nga nag Sénégal lañ nekk nag te kenn ku ci nekk ni ngay defee ak sa marketing. gis nga Zeyna Ndour ba mu fi jékki-jékki naa ay la 18 ak la 10 lay xew. nga takk la yow na am fit naa ma takk gi nag dinañ ko di di di. dina bett ñu bari <laughs> rek ma engagé wu takk la kay. ami <laughs> ko naan takk na <laughs> formation. ndeke kilib la doon génne du takk kilib la. Mhm. ah Mia tam pour def marketing am pourquoi pas parce que je crois que ne Mia Guissé tey bu ñu ko doon takk du engagé wu ci ay relation di ko fësal à ce point. Mhm. Euh, mhm. kilifa la ci wàll gi mu nekk. parce que jigéen quelque soit alpha kilifa ngay doon. ak relation boo mënti nekk lu lay son ba neex neex neex neex neex neex am na yoo xam ni personnalité am ak dignité am man jàpp naa ne du ko ko may juste pour relation. bu dee nag mariage mariage la am na ci plein droit. bu ko ah. defee sax bisuwante te def lu ko sax ndax mariage la même bu dee far sax am na ci droit. mais bu dee far non non bu dee far ajumaas hmm. amu ci droit xam nga lu tax. parce que nit ku nekk parfois da ngay sàng sa bopp sutura. ci relation parce que relation nag attention relation ak sëy duñu benn. léegi nag relation yeeg sëy benn la xam nga lan la <laughs> <laughs> <laughs> relation ak sëy benn la. relation ak sëy mënut a nekk benn. aji la aji la wax ni. relation ak sëy duñu benn encore une fois bu leen déglu kii veeram yi mu tax rawoon na sax ngeen jàppoon. aji moom pour moom pour moom affaire yi warul am limite da nga war a dund happiness dundal ni nga ko sentir. n'est-ce pas. Eh, ah, ah. Eh, moom da nga koo gis muy tegante ay loxo. kan aji mu ngi si nekk ci internet bi est-ce que da nga koo gis muy tegante ay loxo tegante ay loxo. Fatick bee ku ci dëkk te Fatick di rey wel rose yi de trois rek foo ne yaa xaj <laughs> rose bi la ami joxoon yaa ngi <laughs> alors bien gisee bu fekkee clip lay annoncé wala bu fekkee que ni elle a l'amour lu ci mënti nekk euh, bu fekkee clip la donc ci les jours à venir on va le savoir dañu ko xam. mais pour le moment bu dee mariage la tamit ñu félicité. waaw bu dee mariage nekk mariage aussi. te bu dee mariage tamit teelul. bu dee couple it neex na. bu dee couple doxul man neex na nit day nëbbatu neex na waaye doxul nit da ngay am vie privée am bàmmeelu biir nit lépp looy dund nit a ngi dund lu ko gën a raw te ne tax toog ci ba kenn doomu aadama di ko xam mhm. te benn cat dafa gaaw ñaar fa nga foog ni fa nga nekk fekk njaa ngi ca feneen nit parfois dafa am étape boo xam ne boo tollat sa àdduna saa yu bàyyi da nga koy nëbb mhm. lal ci mbaaraanu kiiraay ba mu war a fës mu soog a fës surtout nag relation bu neex dafa jar a nëbb dëkk bi àndandoo bu neex sax ba ci xarit ñaari xarit sax dafa jar a nëbb fii at na toll tey yaa ba léegi ak réseaux sociaux yi moom léegi nit ñi moom mënatu ñoo dinañoo nëbb dara aha kay yow sénégalais lu ñuy dee sax dañu koy sinap lu ñuy dee sinap ko bu ñuy dem ci douche ba sax dañu koy sinap yow da nga xaman ki ma nekk nu mu tudd kon koo xam non yow moom c'est vrai que. non dama la laaj <laughs> <laughs> man da nga xam ne. yow jaay la sonal yow sa. waaw jëndoon jaay. man xale bu góor ay sàcc. naa <laughs> gis naa la yaa ngi ci saag yeeg yaa ngi ci saag yeeg fourniture scolaire yi loolu rek ngay stati. te su ma la nee maa ngi ci loxo war nga xam ne maa ngi ci loxo. yaa ngi ci loxo bi yow ndax loxo ba ma bàyyi loxo ngi toog. bien sûr du ma jub ci ay loxo. doo ko génne ci stati waaye du génn stati. da nga ragal ñu këf ko du génn tiktok. da nga ragal ñu këf ko waaye lu tax ma di ko génne man de ay far it laa dama koy génne. ba kenn lal ko ne ko bëgg a bëgg moom maa ngi nii. <laughs> alors euh, donc li ñu nemmee aussi ci euh, li nga xamante moom mooy euh, le cas de Mia Guissé ak point d' interrogation bi ñu ca teg aussi dama bi aussi ñuy ce que kii di Sidi nekk aussi en couple ak Zeyna Ndour. alors koy wax c' est vrai que ni y a de cela mën naa ne un an donc à chaque fois da ngay dégg mariage entre Sidi Diop ak nga xamante moom mooy Zeyna Ndour lan moo tax sénégalais yi di ko wax euh, euh, Karog Viviane daf doon def anniversaire am Sidi Diop moo ko doon moo ko doon moo ko doon way Zeyna yëg na ci kaw scène bi gis nañu complicité bi am. est-ce que nekkul complicité boobu noonu am moo waral ba sénégalais yi di wax que ñoom ñaar dañu am relation je sais pas en tout cas daal euh, bari na ci ñu ko ciy wax wala bu fekkee tamit dafa am Sidi tamit di ko nëbb ak Zeyna tamit ñu wax ñu aji bu la neexee ah man de man vraiment bu doon relation la man kontaan naa ci mhm. parce que Zeyna saa sam la euh, xale la bu diiñ mhm. xale bu réglé xale boo xamante li ma gën a neex Zeyna doo gis toujours doo ko gis feneen fudul fi nga xamante ne à côté de sama yaayam man loolu man c'est des gestes yoo xamante ne dama ko estimer ci Zeyna jomb ko. Mm, mm. Sidi réel la gentleman la. Mm-hmm. góor teg nii nee yàlla la xam nga. Mm-hmm. yaa ma gën a xam <laughs> ah xam nga pourquoi pas mënu ko jël. ay yéen ah. lan mooy problème bi. Sidi mu jël xale bi ah. waaw may la premier njëkk. <laughs> waaw a waaw mën ta ñàkk mën na nekk ah. eh? mais aussi leeral ñu de toute façon mhm. mais tamit bu fekkee moo nekk on le on les souhaite ñu nekk ci jàmm bu mhm. baax a baax a baax ba yàlla lu ci na mu def ko ci mhm. mu ngi noonu parce que xale bu diñ ne bu ko takkee am jabar Zeyna bu sëy sëy am jëkk yàlla na yàlla boole ñaar sax et puis ci taay aussi ah ñu neex waa ah. ñoom ñaar man keroog bi ma gisee vidéo bi mu mel ne que ni Zeyna daf ko lëng xaw ma moo ko lëng ma gis complicité bi am te boobaa dina gën a neex Zeyna ngay way lu tax <laughs> ku ne di waay <laughs> loolu dafa neex loolu war na neex de ah. waaw comme yow comme ñaar diggante bi ñaar yëpp yow da nga faree ci Sidi faree ci Zeyna. waaw hmm? waaw faree ci Sidi parce que li tam a gën a faree ci Sidi dama xam nga rek Sidi xam nga ñëpp ne nañ Baye Fall mhm. xam nga Baye Fall yi tamit gën neexul. <laughs> wéy la fa. en parlant en parlant est-ce que xam nga ne Sidi day génne album aussi. ah suba. dafa mën wala tey ci mercredi bi rek dafay génne album dafa mën yàlla na ko yàlla defal jàmm mhm. macha allah moom itam lu kawe jotam ndax baaxkat la vraiment mhm. Mhm. jàmbaar la vraiment la wala li euh, li sénégalais suuf comme si nekk en couple euh, tey la neex de yow moom da bëgg ñaar ñu bëggante bu ci mariage amoon nga xam damay dem topp Viviane daa ko ne der men <laughs> naan ko xale bi li mu sa lool la naan ko xale bi na sañse na def li na def li na parce que nag xam nga lu waral loolu Zeyna mu war a marié rek Zina war a marié rek. Ah. macha allah. ko nga xam ne naa ko Viviane yaayam waaye bu bundur mu baax mi baayam. Mm-hmm. kooku nekk xale boo xamante ni kenn dégg ko ci dara lu dul toog ci wetu ndeyam mhm. euh, keroog ba mu àndeek yaayam dem màkk ci la ko doomu aadama yi gën a naw mhm. ndax te euh, doom day yéene day yéene ndeyam lu baax jël loxo ba teg ko ci jël loxo yaayam oh. teg ci kaw kaaba ji mu nekk image boo xam ne jooyloo na ku nekk mhm. kon Zeyna mën na am lu nekk ci àddunaam parce que xale la te jongoma na tubaarkàlla kàlla macha allah jongoma euh, jongoma ay Zeyna Messi sax jomm ko Messi meen mhm. xam nga Messi Messi fu mu. Lionel <laughs> Messi mu nga jànnaare léegi Arabie Saoudite. te bu tey jii ko sax. non non non Messi mu nga États-Unis. États-Unis kon Sadio Mané. <laughs> Sadio Mané nekk ca naare. Sadio Mané nekk ci naare. ñu bindal ko Sadio Mané ah. c'est vrai des fois ñu jiñ ko aussi Sadio Mané. Zeyna doomu aadama jomb ko ci kaw suuf. parce que mm-hmm. xale la te mm-hmm. xale la boo xam foo ko fekk mi ngi toog ci peggu ndayam. Ah lépp lu yaayam nekk mu nekk ceeg moom. kenn gisu ko ci dara loo xam ne ñàkk fayda la. Ah macha allah nee naa leen Viviane waykat la waaye waykat bu éduqué ay doomam la. Mm-hmm. kii di doom ju góor ji bañ na ko ba xale bu am kese la foo ko fekk doo ko gis dara ci loo xam ne négatif la. kon macha allah loolu suñu borom moo koy def. bu Sidi nag bu wut see doomu Viviane liñ naan xandar bu bu bu daanoo ca war wàcc war wa wàcc mhm. waykat la mhm. te xale bu am talent la xale bu bëgg boppam la xale bu xam fi mu jëm la tamit xale boo xamante ne ku am ambition la moom Sidi Diop mhm. li muy nekk nekk nekk xale ku teral ndayam la li ma wax ni preuve laa ci am wax mu takk jabar kan ah, du ko mat dañ koy mën bu yàlla suñu borom bi defee mu mën ko ba sant ne lii kat vraiment mën naa ko te du yàq dara su boobaa ci carrière musicale bi nga xam ne ca la parce que Sidi tamit wax dëgg yàlla macha allah jàmbaar la mhm. gis nga ni Zeyna di épaulé ndayam nii Sidi mhm. noonu lay épaulé ndayam ca Tamba mhm. Sidi tey lu mu am ci àdduna jox na ko waa këram amul dara lu muy lekk bàyyi ndayam ji nga xam ne moom moo moom moom moom mooy Zeyna. mais ah, ah, mais mais. <laughs> ñi ko war a dox a dox nañu ko dox. bu dee am na amul problème bu ci nekk. Uh-huh. am na ak amul nag kenn xamul parce que nit ñi parfois dañuy gis sax complice ñaari nit ñu toog nii rek di waxtaan nag ñu dañoo gaaw ci. waaye xaritu góor a jigéen amul de lu leer laa la wax. am na ça existe. <laughs> yee bu amee bëriwul. am na lu jarax man am naa xarit <laughs> non ça existe man am naa ñaari xarit njaga jaara menn uh-huh. mi nga xam ne ma nga fële ca Nigéria amaat ci keneen koo xam ne Ablaye Diouf la maak ñoom dañuy bokk benn lal tëdd ko nelaw yeewu hmm. barki Seydina Muhammad laa la gënal su ma nekkoon man hmm. bu doon maa des ci jigéen njaga jaare at day day solu ji sœur bu desoon ci góor abbe laay doon parce que am na du neex ba dara am suñu diggante tul ne bën bënu pos kon buñ naan xaytu góor a jigéen amul man dama part personne man gëw ko parce que Ablaye Diouf uh-huh. goro bébé bu Saint-Louis te nekk Espagne man sama jàmmeñ la uh-huh. njaga faal mi nga xam léegi mi ngi Nigéria sama càmmeñ la mm. kon ku ne xaritu góor a jigéen sa aji si man de weddi naag parce que am naa ay xarit yu góor yoo xam ne maa ngi ñoom depuis bas âge mm. te ba jusqu'à présent dara mosu cee xew super alors euh, loolu la mooy troisième point bu kaw bees rapidement ñu jàll ci quatrième euh, point bi mais ba léegi ci quatrième point bi aussi dañuy des ci daanaka tax ci Zeyna mais cette fois ci yaayam Viviane Chérif nomination ci li ni moom mooy Trace Music demee ba à l'international ou au plan africain donc ñu di ko nominer ci li nga xamante ni moom mooy ñaari catégorie ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni mu ngi koy amal ci musique je pense que loolu leen ndam la encore euh, ci musique bu Sénégal donc loolu xam naa ne aji moom dana sawar loolu le pour wax ca Viviane Chidid mm. gaynde la ren la parce que à chaque fois ci liggéeyam dafay wane njàmbaarte di mm-hmm. yóbbu bu baax a baax musique Sénégal ci kanam a kanam aji aji Viviane nominé nañ li la won na euh, li nga xamante ni euh, départ am ba fi nga xamante ni moo di arrivé am. Mm-hmm. Viviane dafa incarné li nga xamante ni moo di boppam. Mm-hmm. ba nit ñi nangul ko li mu incarné. Mm-hmm. comprendre nga. di innové nag di def ay preuves. vraiment partout dans le monde entier ñëpp ko xam. kon nag ñi ko koy ñaanal yàlla na ko jig. amiin ndax lii nag lii moo lay wane ndamu Sénégal la moo tax bés bu ñuy wax ay affaire kiw en nord pour. waali bala ko Sénégal nan fàttaliku ni. bis bu ko indee ci sénégalais bi indi lu ko guinéen yi indiwu ko camerounais yi indiwu ko ivoirien yi sénégalais sénégalais yi la ko indi nañ ci bàyyi xel moo lay wax ni mhm. gis nga chaque jour dañuy wax yoo xamante ni dañu fàtte ni day dellu siwaat fii ci xamante ne moo di suñu réew mhm. kon xam nga ni ndam li ndamu sénégal la nga xamante ni moo di ama amati na ndam mhm. wax dëgg yàlla. catégorie meilleur artiste. ci Afrique francophone ak beneen catégorie bi mooy meilleur artiste féminine maanaam ci waykatu jigéen yi nekk. Afrique yëpp bokk na ci catégorie boobu la ñu dàq way fii ci Afrique. ci jigéen ñi ak ñi dàq way aussi ci Afrique francophone maanaam dëkk Afrique yi nga xamante ni français la ñuy làkk mooy ñaari catégorie yoo xamante ni bu ci nekk daal bu ko gañee mu nekk beneen ndam nay njiglaayam nit ku baax la ba li ma gën a ku ko ku ko bëgg xam na dafay day attentionné ci nit day bàyyi xel nit. Mhm. tey tamit boo waxee ak moom mu tontu la. lu ra lu raar. tey maa koy wax nag au effort. waxal ñu relation boobu tey ki nga xamante ni moo di laay jaañ koy gërëm mhm. na te tey nit ki message la nga toll fi nga tollu xoolal fi nga toll au sommet même. Mhm. nga àttana taxaw répondre ko encore. taxaw di wax ak moom ci jàmm ak salaam. kooku nag nit ko baax la. vraiment. te nag yamul ci loolu maa xam na ni ci social. moo ci xalifa général. kan ci dox lu doy waar mhm. Mhm. gis nga ay fourniture année xale yii. Mhm. même booy xool ci. chaîne bi ak micro bi. ak ci lu bari. macha allah ñu ngi ciy def ay jéego yu doy waar. di dem ci daara yi di leen di dimbali. gis ko tout sama ba Modou Fall di noonu def euh, kiiw daaraam bi. chaîne bi ciy def lu. xëccal ma verre bi voilà benn chef bi sa verre yu rafet yi. waaw Massamba nee na son bi. xam nga mi ngi noonu kon Viviane na ko ñëpp ñaanal jàmm na ko ñëpp ñaanal salaam mu jikko nit ku baax a baax. Mm-hmm. man ah. mm-hmm. yaay booy. Mm-hmm. Eh, yow xam naa ne famille boobu la jege nga leen aussi ak bu ñu waxee Viviane ak li nga xamante moom mooy carrière mbokk nga aussi ñi nga xamante comme toutes les sénégalaises yàgg nañu ko suivre tey qu'est-ce que mu am ñaari nomination ci Trace a mérite la. Mhm. xam nga nit ki parfois dina toll ci àdduna foo xam ni. Euh, topp ci dara pendant des années. Mhm. xamul dara ci àddunaam loolu rek la xam. ndax Viviane mhm. daanaka way rek la xam. xamul dara way rek la xam. te muy wayit tey innové. macha allah di xool li Sénégalais di bëgg di ko def. gis nga nit boo nekkee ci yoon wu baax. lu mu yàgg-yàgg suñu borom dala ciy fekk. ah oui te lépp loo gëm ci àdduna nga ne man damaa gëm lii. gis nga yàlla lépp loo gëm mu dëggu ci yow. lu yàgg yàgg yàgg yàgg suñ borom fekk si la ci dégguñu ne la ku yàgg ci teen ku nekk baak fekk la fa mhm. te Viviane lu mu am ci musique ci àdduna du sens mérite la. elle l'a mérité parce que day day day day def loo xam ne rek day dugg ci biir xolu doomu aadama yi. Viviane dafa prouvé. Viviane toogul rek. <laughs> ca jamonoy Cogolong ca Viviane toogul rek <laughs> parce que tey bu fekkee dañ ko nominé ñaari nomination yoo xam ne naa nomination moom Viviane moomu mais par contre Sénégalais ñoo ah parce que ñun la ko indi. ñun la ko indi indilu ko kenn ah mm-hmm. ñun la ko ni ñu sénégalais ñun la ko indil ñu ko ci félicité encore une fois di wax ne musiciens yi dañuy xool ñenn musiciens yi dañuy mhm. xool ci Viviane mhm. parce que tey kenn mënul ne musicien génn ci moom Viviane kenn mënul ne waykatub sénégalais bu jigéen bu mën a sañse son machallah te tuddoo ci ki nga xamante ne ni moom mooy Viviane loolu la ko suñu borom bi defal elle est complète non <laughs> machallah ci cadre cadre way ku ne xam na ne bu woyee bu génnee tout le monde apprécié. Mhm. ci côté sañse bu solo bu génnee ñëpp apprécié. Mhm. donc loolu dañ ko koy nangul parce que loolu yàlla moo koy def ci nit. Mhm. mën na solo mën na way macha allah. am na feeling am na présence scénique am na présence scénique foo ko fekk day kaf mu ngay mu foo ko fekk day kaf foo ko te ñu ko xam. nga euh. xam ne dañuy liggéey ak moom ne nañ lu mu kaf-kaf lu mu foofoo lu mu reeree côté euh, liggéey bi bu taxawee elle est lool mm-hmm. loolu laa bëgg ci jigéen gis nga nit lépp loo nekk da nga ci am fulla ak fayda mm-hmm. parce que loo amul fulla ak fayda doo ci jariñu mais lépp loo am fulla am ci fayda rek da nga ciy daal di jariñu sama maam ko waxoon hmm? c'est nee na fulla ak fayda danoo bokk benn néeg nee na fulla xëy sol ay dàllam romb fayda fayda yi tamit nee na xëy romb fulla ci bunti digg ëtt bi romb ko génn génn kër gi. Mhm. kon boo amee fulla da nga ci boole fayda. da nga ci boole fayda c'est très bien. anecdote bi ko joxe nii neex na ma trop. Ah, <laughs> leçon la macha allah. <laughs> alors ñu jaar sud ñu di ko souhaiter bonne chance aussi di wax que ne na ko sénégalais yëpp votel Trace Music Awards euh, war a am foofu la ca euh, diwaanu Kigali au mois d' octobre donc ci ñaari nomination meilleur artiste euh, Afrique francophone ak meilleur artiste féminin donc loolu la je pense que ni beneen ndam la encore ci musique bu Sénégal pendant ce temps là Wally Ballago Seck album ba ñu nga koy précommandé daanaka sax jeex na donc mhm. xeex disque d'or mën naa ne daanaka. Euh, ci liggéey boobu mu nga xeeñ ah door bi. en ci liggéey bu am solo. bis buy ñëw de aéroport. Uh-huh. dinaa mel ni sa place. <laughs> ndax dinañ ko tertu. def une forte mobilisation dem jëli ko cas mu ngi cay liggéey liggéey bu am solo mu nga cay def lu mu mën këntalaay kattanam et puis Farama Régé ñu ngay précommande disque d'or kii bi euh, album bi euh, comme pas possible boo demee ci euh, sur toutes les plateformes daanaka mun naa ni que ni jeex na kon gis naa ñaaxarañ loo dafa dem di jënd ñu ne ko li ñu amoon yëpp jeex na donc mu wan mu gërëm bu baax a baax Farama Régé yi mais tey ki nga xamante ni moom mooy Amady Badiane daf ko rendre hommage loolu la ñuy jeexalee ci ngénte bi nga xamante ni kii di Amady Badiane encore une fois ñu di ko ndokkeel doom la mu tuddee ko waali Balago Seck te nee na bu amaatoon encore doom bu góor tuddeewaat ko Waly Balago oh, Seck donc mu nekk loo xamante ne aji donc tey ci loolu la ñu tëjee euh, ci euh, njukkal bi Amady Badiane ak ni mu tuddee waaw euh, loolu moom moo lay wan ni mbëggeel la cofeel la mhm. waaye yëg ki nga xamante ni moom moo di waali mhm. ndax nit ki boo ko nawul doo moo di sa doom ndax dafa foor mhm. wax dëgg yàlla tey ki la ko tuddee bañu la ndax ki nga xamante ni moo di alayhi salaatu wasalaam sallallahu alayhi wasallam nee na képp ku ko tuddee doom xam man sama xanaa xamoo suñu famille maa fa zaayire nii mais ñëpp ay jànkatu alxuraan ina imam Moussa Gueye mu RTS maa xam nga ni yaay mag sama papa bokk ndey ak baay waaw keroog sama tudd doom daf ma doon wax lii may waxaat nii ci plateau bi nee na Seydina Mohamed ku ko tuddee doom amatul intermédiaire di ngeen jàkkaarloo loxo loxo mm-hmm. te jéggal na ci sa famille kër ndey jéggal ci famille sa kër baay loo xamante ni loo xamante ni loo xamante ni kër xamul nu mu toll kon kooku sëgam yonent bi ngay tuddee tur sak ajjuma mm-hmm. muy ñëw muy yónni li nga xamante ni ñoo di ay malakam ñuy xool nun téye li nga xamante ni moo di turandoom gën nit ak i noppam xam nga ni xaw ma kan Mhm. waaye Eumeudi Badiane li mu def fort na mhm. ndax turandoo dafa fort doo ko tuddee doo ko tuddee mukk koo xamante ne nawoo ci ko mhm. doo ko tuddee mukk koo xamante ne nawuloo ko kon nee naa ko li mu ànd ak waali dëgg la ndax bis bii tey firndeel na ko ndeyaa jabaram di nit ko yàlla baaxal tey ñëpp kontaan ci tuur bi àdduna yëpp kontaan te naka ko leer ni bu disque d'or bi ñëwee ban jëli ji bi aéroport ba def une cortège une forte <laughs> mobilisation buñ fa jógee dinañ dem sa doomu ndey Omarou non ma <laughs> a ba ñu tegoon ma ca caraport ya duma ko duma dalati mais engagement yi faa ma jël ko ci waali di wax sénégalais yi na ngeen préparé bu disque dool wàccee caq naw biir aéroport Blaise Diagne incha allah forte mobilisation forte délégation jusqu'à place du souvenir avec Wally Ballago Seck incha allah <laughs> c'est mes engagements que j'ai déjà décidé avec le, le protocole du président Wally Ballago Seck avec le communicateur du communautaire sonal sen bu ma aworo communication man nag maay kurama abat du nit suba teel la ak Sidi bi war a génne album yàlla na yàlla def jàmm nag wan suba salteel ñoom laay topp man man kenn mer waaw yal na yàlla def waaye nag Matar Diop dafa am buña buña bi mooy lan ko doon wax dès le départ ndax maa ngi sama xel sax nag damay wax uh-huh. normal uh-huh. yaa ngi dégg uh-huh. li tax euh, tudd bi am buña ki ne ba jaan dafa ñëw dafa doon sëy foofu dëgg la yàlla weddi bi yàlla weddee ëmb di takk jabar ñëw ni nii ndeyaa teel ki nga xamante ni moom moo de di sama doom ak màkki mu téye ko patalu ko làggalu ko xoolu ko ñu yërëm xale bi. gisu ko tubaarikàlla ñuy ñu ñu taxaw xeeb xale bi. Mm-hmm. kon nag ki nga xamante ni moom moo di Kiné Badiane war na tax képp kuy sëy sëy sëy fenn def fa lu baax pour boo fa dellusee doo fa am gàcce. Mhm. dëgg la vraiment vraiment loolu lay sénégalais yi rafetlu nañ ko bu baax a baax. bien sûr rafetlu mhm. ah bon di féliciter encore Amady. ci mhm. bi nga xamante ne ni moom la jël def ko ki nga xam ne moom mooy Waly Balago Seck. Euh, Amady nag <laughs> kenn du ne tour bi bett na kenn parce que ku ne xam ne diggante Amady ak Waly Seck. dëgg la macha allah Amady Waly kenn du ko touché. ci Amady. Waly tamit kenn du touché Amady ci moom. mu nekk ànd boo xam ni Euh, sincérité bi ci am da parfois daf lay dépassé. Mm-hmm. te Amady day dégg lu nekk Wally di dégg lu nekk. Mm-hmm. mais Amady du wax ci Wally naka su dul noonu fekk mi ngi toog. Mm-hmm. Wally tamit kenn du wax ci Amady naka su dul noonu fekk mi ngi toog. parce que seen ànd bi bu ko sincérité la loolu bi ko kenn waxatu ko. parce que ànd yi bari tay tas nañ te ñàkk sincérité moo tax ànd bi tas. te li mu wax ni bu ma amaatoon doom bu góor encore tuddee ko Wally moom moo xam fa ko Wally toll ba tax mu wax loolu. nit léeg-léeg il faut nga doon as gis nga as dafa da daf nit dafa dafa mën a asgor laa fekk du asgor mhm. asgor dëgg dëgg dëgg dëgg day téye nitam asgor dëgg dëgg day yéene nitam parce que mhm. turandoo ku la ko jox rek yéene na la ko mhm. bàyyi képp ku mu àndal bàyyi ñëppam ne sama doom ji tuddee naa ko sama nawle bi may àndal te su ma amaatoon beneen bu góor encore tuddee waat ko kon relation boobu <laughs> relation boobu yal na ci suñ borom bi teg loxo yal na ci yàlla teg loxo diggante Eumeudy Badiane ak ki nga xam moom mooy Waly Ballago Seck yal yàlla ci suñ borom bi teg loxo Kiné Badiane nag di sama rakk di sama xarit Eumeudi mhm. di sama nit di nit ku baax moom tamit comme ni Wally nekkee sama nit Eumeudi sama nit la mhm. moom li may wax moom xam na man xam naa yàlla xam na mhm. ki nga xam moom mooy Kiné Badiane di sama rakk kon ñoom dañoo nekk ñoo xamante ne ni tey man euh, ndeysaan sénégalais dafa am ñu bari ñoo xamante ne nii ku ñu xam ak ku ñuy ànd dañ koy fësal man yàlla daf maa boolewul ci loolu mm. mais ragal naa ne sénégal njaay gi ñi fi nekkul sama nit dañ koy weñ mais nag du ma bokk ma ci nit ñi nga xam ne genre dañ la diw sama laa diw na ñoo am ñoo xam ne fësal jigu leen mm-hmm. am na ñoo xam te seen nit bu ñu ko wanee sax bu subaa nit ko yàqu mm-hmm. dafa am ci ay nit yàlla bindee noonu mm-hmm. donc nit ku nekk parfois da ngay xam sa bopp la def. parce que gis nga doom dafa foor foor boo xam ne ki la ko téyel. ngay voyager mu téye nga ñàkk a nekk ca kër ga mu téye. te mu doon doonu lu dul nag sa jabaru ki nga xamante ni moom nga doon sëyal. yàlla wet bi keneen ñëw toog di sëy sëyam nga jël sa doom wàcc ko ci biir kër ga xale bi jël doom ji uuf fob sang. def lépp nit du xool xale ba ne ko ca mbay mhm. kon kooku tey Kiné dafa lu dul rendre César à ce qui appartient à César mooy ñëw ca xew moomu mhm. ñëw ca bés ba mhm. taxaw def fa geste bu rafet ah, di fa toog ak jabaru jabaru ëmmadi bi matin midi soir dar koon ni dar mendera tey ba yàlla bañee Kiné ma ngay sëy sëyam ëmmadi ma ngay sëy sëyam waaye li leen yàlla boole mu ñaawul te ñaawul man dama bëgg genre yii nii parce que yii nii dafa baax Amady papaam la bien vrai que ni tey ah, euh, yàlla wedd na ku ci nekk yaa ngay sëy donc loolu lay nekk aussi ay témoignages yoo xamante ni ça marqué les Sénégalais malheureusement temps bi jeex na euh, ci fin temps bi la ñu nekk aji euh, communicateur traditionnel noo def ak politicien yeeg <laughs> waaw <laughs> commencé saa su nekk rek <laughs> commencé moom fi ne nii nee ma politique noo def ko waxee aywa porte embouteillage une forte mobilisation préparé bu wàllu UHCC aéroport incha allah avec la disque d'or ñu taxaw dem ak moom di place de l'Obélisque ñu féete li nga xamante ni moom moo di ndam bi nag Sénégal la ko indi Sénégal la de te nag il a mérité mm-hmm. lenn rek la ma jaaxalee ba mu demee ca place ba jaawale ma di ma woowee <laughs> Fatmas ah kon waa Alzheimer gis nga dégg nga dégg ko. ma ko yow man di bu Fatmas la dama daan tex tex Adjumas da nga eh, ma faat Adjumas loolu amatul. loolu amatul. en tout cas merci beaucoup ça a été vraiment un bi jeex na fi la ñu koy yemale tey euh, ci mercredi bi a baax ci ànd na analyse bi aussi neex na sénégalais yi kontaan na nuyul bi nga xamante ne mooy jaay añ waa Sénégal nuyu waa sama fans bi may mën a ndeysaan ma dikku ne de passage di ma fa jaaree barki dem gis nga seen waa place ba ñoom ñëpp a ma fa la ñuy sax après ñu dem euh, salam fruité naan foofu ewa euh, eh ewa eh <laughs> masamba bu ñu topp <laughs> masamba demoo <laughs> kaay fii ñu dajee Cheikh mi kii business moom remercier di remercier ñi nga xam ñoom ñoo ñu doon seetaan ñëpp waaye di remercier ki nga xamante moom ma ñawal li ma sol di Babacar di sama tailleur nekk sama koñ tey laay ñaa jaaru mais Babacar moo fi jaar mhm. nekk di ko remercier bu baax ba xam naa après mhm. ma ba loo borom a baax a baax Dubaay ah fi ne ku may may bi nañ ma may waaw ah, ñu demandoo nañ ñu may. aji daa war a dem Dubaay yéen ñaar yéen waaw nga bie eh Matar duñ may bie ñu def Eliman Lam ñu koy i xapasde tuyu ndeysaan mais Matar boo leen ko jaalee bie may leen ko di il souhaite Youssou Ndour ak Mbaye Gueye Faye xapasde tuyu très bien Mbaye Gueye Faye <laughs> ñu souhaite un joyeux anniversaire Eliman Lam nag Fafa tamit Fafa menn bi nekk fii message tamit anniversaire am message birthday à toi c'est notre di def aussi liggéey bu am solo borom célébrité sport mm-hmm. nekk fii ci kër gi toute l'équipe de KOUBS toute l'équipe de Sénégal 7 ñu ngi lay souhaiter Euh, di ko ñaanal yàlla liggéeyam bi yal na ci sax ci barke mhm. yonent bi parce que xale bu gëm li def la nag xale bu la boo xamante nee ko fa tabarfakala macha allah xam nga Sénégal set képp ku fi teg sa rek mhm. da daal da koy daal di bëgg par la force ndax ñi ñu njiite mhm. ñoom ñoo baax te nit bu baaxee rek da am yéene ci jëmmam donc yal na fi yàlla saxal te yàlla saxal ñu fi ñun ci barke yonent bi sallallahu anniversaire Fafa aji ku la solal ah tey nag euh, nee naa ko max business moo génn fi nga xamante ni macha allah moo di ci ensemble Chanel. macha allah laal ma marque bu baax bi tampon caché mu fi laale undi leewu la ma sax. waaye béggee bu baax a baax a baax baax ki nga xamante ni moo di sëtu si xirim lu mbaan bi wala ko dumaane mbaay may si xar mi di fàttali ñëpp rek. Hmm. ñu ngi route vers Ndiassane. Hmm. di ñaan yàlla waa ko Sidi bu naag mekkaay Sidi ma ca pom di Kunta bu baax mi hmm. jaajëfal ko jaajëfal waa kër Sandoxo di lay ngi ci ruutu Ndiassane ka mu di ngénte la mhm. nañ ca ñëpp eh, tubaarikàlla yegg ca jàmm ñu ñëwaat ci allahuma amin allahuma la am na solo merci beaucoup à vous yéen ñi nga xamante ne doon teewlu ci Sénégal 7 bëggee bu baax a baax a baax émission bi dañu leen di gërëm bu baax a baax waa KD automobile sama benn papa Serigne Modou Sène taaliba Serigne Saliou bi macha allah ne naa ko allah wàlliwu kaamil la mhm. yor daara yi di jàngal ay xale te xale bu mu jàngal nga am ñu ngi koy ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax waa KD automobile ndax Edine euh, dafay def mbir mu am solo dalay lebal oto nga koy fay par tranche nee ma aji maas bu dee amagul ma lebal <laughs> <laughs> a baax foofu moo nekkoon ci technique bi merci à la direction merci beaucoup à la ak ñi nga xamante ñooy nekk ci ginnaaw di dagg vidéo yi ñoom Malick Malick ak ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy wax production junior gërëm leen bu baax a baax joxante dig daje incha allah samedi ci beneen numéro bu Kaaw Bees ñu fanaan ak jàmm